ويؤتي على من يشاء من عباده فضلا إذا أعلم فإليهم بدل الآيتين أربعا من الفلا وخمسون أبجرهم فقهاء في كافر لا كما يقول أي قوم لا هم يرجعون عليهم فلا يقول لي بعد ما سمع ألف لهم رهادي إلى أمرا لا أرى ما إلى قلب مرادي كنتم بخير كنتم إلى أمرا waaye ci taalu li lay ak téere la am sa naaw mu wasal ko ilayka jëm ci yow Muhammad di ko jëngi na nga jëndi naa fa nit ña dina tudd maa bi ñëpp ci ci dina mën a jëm ci gëm yàlla rek laa wàcc alquran ji ci yonent yàlla Muhammad ndax lan tax mu génne ñu ñëpp ci yéen yóbbu leen gëm yàlla ne ci ndax dafa la yi yéen nekk ñu ci bu am ñu ci ko tudd Allahu yàlla la fi mooy buur bi nga xam ne da yéen na ma sama waata nekk ci asama di ko jaar bu ma fi la ni nekk ci ko jaar moom ak ak mbir ak ak njaam wala ñun dafa doon kaafir mu war a doon loolu ñu dina xaalim ci ci bota bi di waaji tabara ala ci na ya ko tax doon dafa ñu tàmm xalaat ci yax ba àdduna ala laaxira ci àlaaxira wala ci doon ko ñu fekk ñu am tabi yàlla wala ñu yàlla ci daam wala ko na ko ñu nak taw dem di ñu jàngal la ko ñu la ko di gëne wa ma arsalna mu ngi mu ñu yéni ñu ko ñu ko yéni ila bi tan fawi dara ci makku bi ko ñu ne ñu bay ñu ñu ñu do ñu leen yonent bi yàlla ma koy yëngi koy jox làkku xeeta mu nga xam ne ñoom la war a war a mu gën wax ci seen làkk ndax ñu mën koo dégg yooyu ñu laa dina réer yàlla mu ne saa ku mu sabab réeralam waaye di sabu jubal ne saa ku sabab jubalam woowu moom alan fi mu raaji nag ci waram ala fi mu raaji xarañ ci joxe woon de wala xadaa fa naa ci yónni na nu Moussa Moussa yaa ak naa ci kaw ci juróom ñeent de yàlla joxoon na Moussa juróom ñeent ci kaw ya daw yoon dañ wax dañ wax ne ko am na ko digal nit après jëndeel xaw ma comme fekkee bani Israël la ñu ma ñu ci kër ci kéefar ila na jëm ci gëm yàlla ñu ne ko génne bani Israël la ci kéefar jëm ci gëm yàlla rek gis nga uute ñaari maqaama yi ci saaru rek waxoon nañ léegi ne wàcc naa alquran ci yeneen du ci suuxi jën naa sa mbiru ulimaati ila noor yéen moom naa si yëpp ñu jot mooy seen yéen Moussa dina ko an ahri xaw ma tamit ne jumaa bii rek moo rëy Moussa ak li biir yëpp ak Isaa rek dañ ko wëri parce que waat leen daanaka ci xéwal yàlla rek dana waa xéwal yàlla yi te fi daanaka ak rek dañ ko ñu waa suñu santaane ñaan ñu ñaan comme topp yàlla te ko leen suñu santaane xéwal rek ko jaa waxee Moussa Moussa rek am na ñaan itam bu la wax diglee leen masala xéwal yàlla rek am jàppum am nga ay bàyyi teen ali Firawna ci Firawna ñu ko mën a kum daanañu sant ay ay laa bi gën jottati mbugal woy tam doon naa ko bëgg yaa way taxoon te ñuy andi mu way taxoon te ñuy defal di saakum aw jigéen seen loolu lañ daan def bani Israël tax waxi benn bu xaw bu ko wax ne doom bu góor bu judd ci bani Israël mooy dana sa ngóor bi daal la ñun ak ñu ko ci ko lu musal seen balaa am teewal ak ñu ngi laaji ma gën a di ci ko borom seen def ko jàngatal ka sama ba xam le am la ñu seen da ci ko ngi am ala bi'atikum ndax di ko ñëw na boobu la fii na toog naa yëngu xam ne ku koy nekk la njëkk njëkk seen aw ñu mooy nit mooy waxaat yi dañu waxaat ba sa mu daal sa moroñ na wala si noonu ñooñu bin baat yi mooy nekk la njëkk naa seen daa la mu xamul leen ila laa dara la ngeen bëri seen jaarum dikkal leen rusulum ay yonent seen bi bay naa ci lay waradoo sañ delloo ay diyoom ay loxo seen si afa ay ci génniñ seen waradoo sañ matt ay diyoom ay loxo seen si afa ay ci génniñ seen ñu matt seen baaraam bi mandarga mer la ci ñoom waxaaloo sañ wax dinaa naka nun safar maa weeti nanu aw si gum la yén neen di ci moom de way naa naka nun la fi fàttali mooy nekk lañ ci sikk ma tasamanc ngeen xool ba idée jëm ci moom bu di daa ji tabal ci sikk de xaawal wax musu moom ay yonent seen parce que ndax saxaa ji nekk lañ ci yàlla ci pour par pour sik ndax yàlla ci ko ngi ci maanaam déedéet di ci xam bu tàbbee ci saxam daf koy daal parce que laay nga pour yàlla par pour sikk de yàlla amul sikk parce que sama bi mooy aji bi daa asamaan juróom yaar wala rek lu juróom yaar jëm ci topp naa nag ñoo la ay bàkkaar lañ a leen di waaye ci ñoom seen jëriñ yéen la ndax mu baax leen seen i bàkkaar u wax rek kon yéen ñi ay mu sama bi ne Allah mbir yéen la basaru naka ma adama ngeen gis naa yi di kenn tuuti ñoo ko ñu tànqal leen seen yéen ci ay nit ngeen rek naka ñu ñu neen ñu wara bañ sama sama naka rek ma kana ci naka rek jam ko wala kay kay yéen ko laay ci ci tànqal su bàyyee daan jaar faatu na di ko leen ci ko lay ko bi mu laaj ci def ala wax loolu ñu yàlla leen sunu ay yéen a borom xeerama ca saw pour mu topp ne baabi yi jaamam ak yéen bu ma kaana xeelu dana ñeenu am naa ko mu di kare ci kaw ci bi sudaa na ci taw yàlla dem ndax ñun jaam yi ci moom lañ wala laay ci yàlla fay toog rek na dara almu ñu way gëm ñu rek bu ma la naa ana loolu ñun allah na tawakkala ba defal na ci mu allah ak ci yàlla waxataa daanaka ci bëgg mu pour naa ay yoon wala na biral na wala yaakaar na noo buñ alama afay tumoona ngeen alama afay tumoona ci ndaxteen de loolu ngeen ñuy lañ nañ ko buñ waaw laay ci yàlla fa yee tawakkali na doon almu tawakkali na way dem na waxaala ta wax la ci na ñaañu kafaroo wet nañu jëru ci lii ñeel ay yoon seen dama ko jànn fu gën a mu jënd leen ñun ardu naa ngeen dëkk ci suuf suñu de awla tama duna ci cëre ngeen nit ki ci milat naa ci diine suñu de aaxee te wayu ilayhim jëm ci ñoom rabbuhum borom seen wan wali kam na wala xam na nu alak ak waa adi na way tooñ rek wala mu ci na ko walaay dinañu bëkkaloo leen la rasul sa de sin daa diin te gannaaw seen daali ko leen dimbal te man xaafa ñi naka ragal na mun maqaam yi taxaw ci kanam sama fa xaafatam ragal waaye ne di tëkk sama de wastatoo dañ dimbandiku waa ñoom féefariyen waa ñu wastatoo dañ dimbandiku ñoom ci ñoom yonent yi ci yàlla waral seen aw nit de fa xaafata perte kulli jabbaarin fépp mbër waatoon ani pour aji jàngat ñun walaay aji naka la ca kanamam jaanam jaanama way xaadee na nanda leen min maayen ci ndox parce que bii mu dëkk wanjar de ñu maree waaw dëkk wanjar jàllkateem waaw jóge ci seen dundee moom la leen yàlla nandal te mu gën a tàng sax ko war a waaw moom la ñuy defaan wala dana mu guuf ko wala yaakaar waaye jege si muy fi ko di wax na ko rek dana ko guuf ngir nit ki mar wax waaye dana ko xaw a ñàkk mën a wax na sax waaw ngir wax ga rek ak tàng ga waaye yi dina dikkal su al mawtu sa fabi dee su di ma xayen tegi sa maa wa sa sét moom ci nay ay dee wax ne lu rey nit dal dal ci kawam te du dee de xawul waraay aji naka la naka la mu daay dëgër de parce que dina ne loolu dama ne dafa war a dinañu bëra dim ci mu amaru ba seen karama di jëkk yóob la sa bopp tax na ci mu yàlla waay ngelaw ñu ci defense yi mu daay jëkk wax ñu leen jox boppam ñu lay ñu wax na dara la leen di jëriñ waaw yàlla kon yàlla mooy sart ba da ngay dem ba ko bañ a topp yàlla bu gëmul yàlla lu lépp lu topp ci ñu jóob buñ jóob ci la wala rek waaw ngelaw ñu dugg ci kawam nag dara du fet ah dana fekk ñu ma tasawal ko ñu fa goor xalaat yeen ci dara daal ko loolu defoo moom balaa lu mu di réeral daa ko daal di sori alam tala ndax gis nga yow Muhammad ana laa na day àllam ala xam gis na ko sama waat yàq man juróom yàlla wala daa suy juróom yàlla bi dàq ci dëgg rek di ne sor leen sor na mu si su mu demee ren yaa tam ci nga xam seen yaa gis rek pour ñu waxoon yàlla léegi mu jëlee ñu fi indi ñeneen waaw loolu am ci kër la gisee ñu gis ko comment ça arrive rek def loolu de yaa si si ñaari jafe laay ci yàlla de ba pare soo dañ génn laay jëm ci yàlla jam leen ñu ñu mboole de ba xaaral sa wax boo faa way topp yàlla léegi nag ñaar ñaari takk ba la yu dëgg naa nekk ku naa nekk nu abaam di way topp lakum ñaa leen faal antum ndax yéen pour noonu way jañew yéen naa ci ñu naa saa daay ci mbugal yàlla bi suñ ci ñu dara aadoon ñu wax ñoom ñu topp ña tawax daana laaw doon di jubal lu yàlla waaw dañ naa suñ konte ñu jubal yéen waaw ajee moo la alee naa ci ñun jëfe naa tiit nañu am sabar naa am muñ nanu waaw naa jëf naa nu may naa di wax wax xaaral te wax saytaan iblis iblis nag waaw mooy tandaf ñun safara mooy seen jiit ba ñëpp dañu aljanna ñuy dem aljanna dem aljanna ñu dem safara dem safara iblis nag mu nga xam ne jàng naa yegg safara kenn ci jaanoo waaw mu taxaw ci jàng naa ma nga leen di xutba nag lii la wax damaa xutbee ba ateew la mu ma dina laa naka yàlla waadakum dëgëlam leen waagal xaqi dëgëlam dëgg mu ne yéen yàlla digoon na leen te leen dekkee am na tey am na ku ma topp dem aljanna ku ma weddi dem safara te yàlla waxoon na dëgg wa waatukum dama dëgal leen man faaxala sukum sama wax deen am na dig leen ne leen dekk amut fay amut aljanna amut safara amut topp leen ci man rek àddina fi nekk yàlla wax leen dëgg man ma wax leen tam seen wàccee yàlla topp ma léegi man wax naa leen comment kaana nekku doon lii ñaan ma aleykum ci yéen min sultaan mi kattan kat bu leen ma yedd kat forcé wu ma leen woon dama leen waxoon rek bu ndax leen leen topp ma daa dina kaana ma leen topp jotum te ngeen wooyu dee ci woote sama wala taw mu di bu leen yedd ma wala ma yedd yedd sa kuma bokk seen bu leen ma yedd man mi leen doon yéeral yedd leen seen bopp lu ngeen ma doon toppee maa ana yéen maam di mus ko kuma ay xat li seen ci safara man du maa leen di génne safara mu sëre man tum dee yéen di mus rek yéen yooyu jëri bi yéen yéen may génne safara ñun ñëpp ci safara la ñu nekk ba faaw ñu nekk man kafartu ya dina dinaa rakk mu ni ak bokkaale seen ak man di leen ne man ngeen toppam sax man wedd naa ko lank naa topp leen ma woon dem leen ma dem ndax naxee la ñun xaw li tëjëg na saalimina naka way tooñ ñene dama wax na ñooma saabu mbugal ay boobu la ñu jëkki taale gëmu boo xila taqar fe fa àlla sina ñaaña amano gëm nañu wa amalo kay jëf saale haati fata naa furee dana di toog sa biir dana daw liñ fata dana naa yoon jëm xaali dina nit muñ jooy biir gaa ke tool rek ibni rabbi ci ndigalal borom seen taxiyatuhum la seen jaam jana wala amuñ baat borom la alam tara ndax gisu la kay fa baraba laaw naka defe yàlla masalan de kalimatan baax tey bala mu daa ji teey yàlla ngi njëebati ab bu tey bi ci laa ilaha illa muhammad rasulullah yàlla tudd na ko ay tur ci alquran kalimatan tayyibatan kalimatu sidqi kalimatu haqqi kalimatu imaani kalimatu ixlaasi kalimatu imaani kalimatu ixlaasi kalimatu taqwa yëpp mooy laa ilaaha illaa muhammad rasulullah am nga nag melam te sa jërë bi naka garab la tayyibatin bu yaa ngi teey laa ilaaha illaa muhammad rasulullah ci mel ni garab ak tàndarma ak tuwaa kàttan saabit mu aji soxla mu ci suuf tàndarma dafay toog ci suuf tam bu dëgër ba xam ne ay bànqaasam ci sama yaa ngi nekk ci asamaan ay bànqaasam tam di jëm asamaan tuuti dana mu joxe uk laa am na ñettam ku lay yëpp jamono mu ci rafet aji digale borom ak ku nekk mu meññ bu dee bu dee mu def lu meññaat daa daa daa daa rasulaay noonu la mel jullit bi wax na ko ci làmmiñam wax na ci xolam dafa bu lay yee jigéen dafa man barke bi jënd si ci moom mais moom yàlla bu nekk yonent ne am na ci garab yi garab goo xam ne mi ngi mel ni gëm yàlla Abdoulaye Omar ne may bëgg a wax ne tàmbarma la mu ne ma gis ne maa fi gën di xarel ma ma rus ma noppi yonent ne tàmbarma la ba mu génnee nag mu ne bàyyam tuuti ma wax ne tàmbarma la Omar ne ko walaay boo ko waxoon mu ma gën a dinaa la jiitu dem yàlla dañ ko daaw dana def yàlla lam taala léeg ndax si ñaan ñi aadama boo ñëwee te fekkoon nañu waadu ba gëm de ba ma falu kalimatin nelaw baax nag ab bi rek subre aji bon baax ak kéefër nag xam nga na melam dafa jarat si naka garab xab bia subre aji bon moom li am ban bëtt la mel de su ci sax duutal duutal neex na ko ñun fooke dara ci kaw suuf te ba mbëtt bu maamu ren yi sax dafa duutal ne ci kaw rek boo ko féree sax mu buddeeku maa laa deet ñel ko mën xalaaren sax waaye amul ay ren waaw boo féree rek mu mu daanu amul banqaas amul meññet noonu la baax ak kéefër mel moom itam waxut amul banqaas amul barke te bitilaa dana saxal yàlla alla si na ñaaño amano gëm nañu jël xawli ji wax asaabi bi jëga aji sax képp ku gëm yàlla yàlla dana ko saxal mu wax baatat tawhid bi moo di laa ilaha illa muhammad rasulullah ilaaha di dunyaay ci tuddawaat na wooku laaxir daa ci àlaxira bu demee ci bàmmeela bi malaaka yi dañ ko laaj bu ko malaaka yi laajee loolu lay tontu de waaw yonent na ne sidina omar moo omar na ngay def dég boo xamee ne dee nga ñu sang la waaw sang la enu la dem ñett natt ñetti xafat gas ko ba mu xóor ñu dugal la ca waaw suul waaw balaa ñu ñaa noppee balaa ngaa noppee jéggi tànk yi ñu rek suul si woon waaw ñaari malaaka daal di tànk yoo xam ne ñu nga ñuul fukk jënt bi yaa nga mel ni jënt buy tàmbalee tànk wala jënt buy toog ci xonk su ci nee njëb bolde boo xam ne dooni aadama yëpp suñ koy dajewoon mënuñ ko yëngal ñu daal di la jëppiloo ne la kuy sa borom kuy sa diine kuy sa fetetal kuy sa xibra waaw kuy sa wérima ana looy def ma bu ko waa su ma tiitee kenn waruma yor de waaye maa ngi lay laal ak taqel bi ma man xamat li ma ne ma ne gisama bamba moom laa xam ne mu ne ko moom laa xam ne mu ne ko bon bul jaaxle dinaa xam ne ma leen di tontu rek fekkee ni yàlla bëgg naa waxal tontul jaam bi buñ ne nag kii sa borom nga ne yàllaay sama borom ci taamay sama diine kaaba jay sama xibla alquran sama dalil ma day sama yëli ma ñu ne nelawal xamul nañ ne loolu ngay wax waaw kooku moom fexe na de waaw su fekkee ni waaw xiifare nag su ko malaaka bi ne kii sa borom mu ne ko yow wala da daal di daal ñu dóor bi ñu bi ay làqat noona bi yàlla bi suuf jot ñu dóoraat man mu ne xaw ma ci dara daal déggoon naa ni ñuy wax wax waaye fatnaa ko laa dara kaw laa taleeka jànguloo xamuloo waaw ñoom dóore ba dañuy dem safara rek way lii laa dana réwél yàlla ak waali mi ne way weddi ña de weddi kat waaw yàlla dana leen réeral ne duñ xam ni waaw jubbeeg waaw nekk na ci waaw jëriñu lislaam waaw ci daaw de waaw baatam laa ilaha illa muhammad rasulullah laa ilaha illa juróom ñaar fukk ak junne ci yoram ak njot la ci safara rek képp ku ko defal sa bopp wala koo ko defal rek mu jot la ci safara rek ak fukki junne yooyu lixlaas moom njot la ci safara fukki junne bismillah rahman rahim yooyu mooy ci daaw yi nga xam ne koo ko defalee jaam daal nga woon ne mujj la ci safara rek benn xaleel boo xam ne daf daa nekk li sore àlaaxira rek woon naa genn fóode fóode ji ne bët bi fet muy wax yëfi àllaaxira man ma di ko fit te gëm ma ko woon gëm ma li xale di wax mu ne jëmmi bés nag xale di yaayam dee ba yaayam dee bay suul ko rek mu ne xale bay ñëw ak soppe bu ma képp di jooy jooy yoo xam ne ku ne xam ne daal waaw métit képp na métit ñoo woy sama yaay ngi nii ñu ngi ci safara sama yaay ngi nii ñu ngi ci safara boo di ne fekk man jàngoon naa juróom-ñaar fukk ak junni laa ilaha illa pour sama bopp denc ko ci bopp ma daal di wax ci sama xol ne te laa xam nag ay bi ak dëggoo moom ñàkk a dëgg maa daal di yéexee ne sama diggante sama bopp mais ci daaw daal ma defaloon sama bopp may naa ko yaay xale bi mu ne ba sama xaatir ba xàggat rek xale ba daal di xàqataay alhamdulilah sama yaay jëlee nañ ko safara du bañu ko aljanna soo jëlee bu jëlee ci ñaari njëriñ am na li ak gis bi wax ne juróom-ñaar fukk ak junni laa ilaaha illallaah jot la ci safara dëgg la xale bi itam est ce que ñun daa wax ne bañu ma ko ma xam ne dëgg la rek rek ñu mucc ci xale bi waaye fa laa dana def yàlla maa saa ñu ko wax alam tara ndax gis la ci leen def jëm ci ñaana fantale wax nañu ñaamatullaahi sant teewal yàlla sufroon ak weddi de ñi nga xam ne teewal yàlla yi weddi wa weddi lañ ko sant rek waa loo wàcce nañu xaw ñu nit seen dara doo xari ci dañ xaltale fii jaanuma jaanuma jaanuma ya kaw naa dañu xarat ko wax ñu sa gannaaw xalaaru sax waaye da dem jaanuma de wa jaanre def nañu laa ñaar yàlla am daar yooyu bokkaale rek lii di ñëw mu di ñëw nit ña am sa biir yi wala ci ñoom de pour waxal sama taxaw yëngu leen yëngu masirakum naka gën waa seen ci la naari jëf ña safara de pour waxal leen baat yéen ña laay jaam sama ala si naa ñu amoon gëm ñu ñett mu ne taxaw salaatu julli way ci ko seen tabax ma fa xana am te mu wërsëg leen ci ram ci ngor wala ni yëpp naa ci lu fee ñu xam di adiya ci te ku bind ko yow dëkk la bayaw jëral ngat ci ci moom wala xilaaram du yaayoon ak xarit de laa yàlla lëfi mooy boobu nga xam ne ala xabit dama sama waate ak man juróom yaar wala laal suñu juróom yaar de waa am suñu wàcc na ne sama yëpp ko jaar sama maam ab taw baax na jëkkër jëndi ji ci ñoom ne sama ràcc dañ yëpp xam bi ñu yëpp lakku ñu naa leen fa saxara kon tàggat lakku ñu naa leen am suñu ko daali ñu tëj li yëpp nañu dox ci baari ci biir wa saxara tàggat na mu lakku ñu naa leen lan xaara yoon yi wa saxara tàggat na mu lakku ñu naa leen am ko jant wal kamara weer saa yi day nit ñu di yaar yooyu tonte wa saxara tàggat na mu lakku ñu leen loola guddi leen di ca noppalu wa naara tàggat na mu bëccëg leen di ca liggéey seen i soxla wa aaraatum jox na mu leen min kulli maa saaltumuhu lépp lu ngeen laaj ko ci seen i maslaa in taxabdoo wala yi ngeen lim lim ngeen neematulaa teewal yàlla daa turtuwaa attanti leen ab takamle na li saana ko xéefar dafa loolu ko naa kon la ka far bu weddaa kon boromam la de waskul jàng tamit xaala wax ibrahima ibrahima rabbi yow borom sama yéen yàlla nga def xaaral dara di yëg ci makka ah di dugg borom ko lëre yàlla na nga ma ñaanal ba nga xam ne waa def na makka bu ñu xuruf yoo xam ne duñ fa tuur duñ fa tuur dara duñ fa tooñ kenn duñ fa rëbb duñ def li nga xam naa bu ko dajale na ko rey sa baay sax waa doo ko doo ko laal dara rek doo ko gaar rek wëj bi nii seet la woon sori ma ba ban yaa doom yi góor sama am naa bu rek ci buru jaamoon la sama kërëm rabbi yow borom sama innahum na naka ñoom kërëm yi xal lan na réeral nañu kasiran aji bay ñu ne naa fi ci nit ñi rek ba man tafe naa ni ku topp na ma ci wéetal yàlla te na naka ma ñu ay naka la ma ci nit ñi sama def ba naa saa nii te mooy na ma te naka naka yow afoorum aji bay nga ñu naan ko rafet na ay jëram nga ko de rabbana yow borom sama indi naka man askan du dëkkaloo naa duñ fi yëti ay doom sama di waa di suqur xayri si saraxan wala fi borom bay mooy makka de anda bay di ko fa nii saal maa rabi ba di ñu naaraamal rabbana yow borom sama yëpp mu ngi ñu taxaw ko laata julli ak yàlla yàlla nga def ak nga doon ay xool ci ne naa ko julli ñi tax yi ñuy jënd leen jëm si jëm nañ makka ci soo jëm makka rek waaye ñoom ya wasu ko ngir fekk loolu ñu sama laata julli ñi waaye loolu jëm ñu def ci ñu kon tey sant naa la borom ñu nekk na ko yàlla bi nga xam ma am ci la ñu mudde ko ma am ñu yàlla ñu sooy ko rek ko ma wax bu bëri ay yaa yaa yàlla ñu sooy dara ci la ci sooy ala sama ci jaagam jaatu ñu rek alam ba ay jëm yoon te yaa ñu na yàlla ci ragal ñu xam ni wa hada mo ñu ñu am mo ay ci bëri ay ci bëri ànd ak ma dafa ñu Ismaël Ismaël dama ñu ñu juróom ñeent ci dafa juróom ñeent ay sa xaal sa xaal dama ñu ñu juróom ñeent ci ko ñaar ñu rabbi ko borom sama te tan ñu wax ra di gëgël ñu ñu am ak dama ya borom sama rabbi ko sama yaa ñu yàlla ñu dafa ñu ñu la ñu ay ko xawal ñu dañu ci wax yàlla nga def ci doon sama ñu taxawal ci biir tam rabbana ya borom sama wa taqabbal yàlla ñu ñu ko xawal ñu am sama rabbana ya borom sama te yàlla nga baal ñu ñu wani an da an ne ya ya ni tare wani ni an ne ya ga ya ya ko ni to da ga na sahawo an sa ni sa do gomi wala ta ta da bin jar kula ala ta da ni ayi ta gon amma ya ne ko ni to ta ni ne ga ni ne ni ha ga ko ni ta da ni ne tare ni ya ni jar ki do ko ko ga ni ko ni ko ni ta ro ga do ko ko ni ya le ko ko ni ni do ja ko ni ya re ti ni do ta la da ay ba ta waaye jëm ak moom rek nit ci tàng laa ko bi kon ci ñu ngi jëm ci ñoom porte yi ak kon de su ko xool day ëpp nit ci tàng yi waa ak nga jëm ay xol seen xawaawam loolu yëpp dañu ko xel waa am tur ragal la ragal la ñu tudd am na ko yëf rek mokk yow ni yaa ci ñun te su ko dikkal leen ala fa bi digal mëre waa ko ñu koy wax Allah ñu ñu wala ñu yëf ñu wax dana ay borom ci ak kon mo yalla ñu yëf ni ila ay ñu digg digg fari ñu digg digg ko dafa digg ñu ñu waaw ko sa ko ko ana ko dafa tan ko buru ko dañ doore wër ni awalam takko ni tax ni ko jëwum ak tam ci awalam takko ndax ni ko jëwum ak tam ci jëwum jëwum ni ko bu ko jëtte ni mala ko jëwum ni leen ni ko walam ab day يقول لك يقول لك يا ابني انت قاعد انت قاعد يا ابني انت لا ترى لا ترى فقد كنت من ذلك من خاطر الذين يدخلوا على النعم فرحوا كانوا انفسهم يدخلون وقد لم يثبت لكم من الانسان فعلوا تنظرهم يرجون وضربنا تنزيلا لكم من الانسان بيدك القران وقد مكروا تفنين مكر انت فتنزيل انت جنب عن ترى وعند الله عز وجل فعل مكر انت فتنين وإن كان مثلا وإن كان مثلا يكون مكر تفهم بالتفعيل بالدم بمثلهم الكتاب الجد من يخرج فهذه الجد على صرف تعبيره راجع سبحانه بالجد الله أعلى من أجل دول من أجل هذا لهم رسل أيهم جد يا الله من جد يا قهر ومن جد أيهم جد أجسام يتفق الفرن على كما تهب إن الله تعالى عزيزين أي من الذي في جرم دار الله تلك وانتقام دار الله التي تقوم عليه لو كنت تقول يا ذا قد استجاب هو قد رضي قال الذي يدي في وكل غراتي فوقها أخناه يا ذا قد استجاب قانوني يا ذا قد استجاب في كله في كله يوم في كله من كله من يوم في ولا أوقات من يوم جميل كل ذلك أوقات في ذلك يوم في هذا تنتهى في ذلك السمرة وأعيد من تنتهى وأعيد له تقول يا يدفعك أيدي وأن يقبل إلى التمام وأخذ يدلك كتبه وقرأت يدي الجميل بجميله ذلك الكلام الواحد ترك مع القاهر كلام وتجاهد وقرأت تعالى ومحمد المجرمين واليدين ويورث تذكره مقرنين من المكتب إلى الطريق الجميل وإلى الدم الجميل دائما قدام ذاك قرابين أي جدين في القطر عنهم يكون يجي قبل إليه يورث أي جدين يبرم يبغى عليه دهره يبرم يبغى جاء تاك سويه تقول ما كان في سفر يبرم يبغى عليه دهره وتقطع إليه يجي ما يكتب الجمع على سفر ده يجي جبنا سوي لا هو على كل مسجد بكرة ما تقدر من قبله يجي يبغى هذا إن الله تعالى فريه الحجابي لا يجي بعد الذي يجي من الحجاب جمع على بكرة ده هذا جل القرآن ولا هم أبد أبد كل من هو يجي يجي فريه أبدنا وهذا اليوم يجي على القرآن ويجي على الذي يقام يأتي إليه في مسجد القرآن أنه هو مكرمون يلا إله يلا لا إله من جهل وهو ذكر الذي بالنوار وهو العباد ورمك الإسلام